mbokk yi asalaamaaleykum euh, bisimila ci xibaar yi ci kàllaama yi wolof na tey ñu ngi rek mardi ñetti fan ci weeru juin atum xibaar yi li ci gën a fës. 700 millions ci sunu koppar nag mooy xaalisu ndimbal bu fees ngir rek ñaax doomu waa Sénégal yi ñi ñibbisi nag bitim réew ñu nekk nag ñibbisi ci réew mi ngir liggéey fii mu war a doon benn pexe ngir liggéey sa dëkk ngir yokku téema FONGIP e moo taxaw nag euh, soxna yi ca diwaanu Ziguinchor mu di ay groupement de femmes yi fa jot nag ay ngir rek mën a jot ci wàllub crédit te mën a liggéey ci seen ay projet ngir xeex wàllub ndool bi Sénégal. élection ca réewum Syrie nag di wéy ci réew réew bu nekk ci geex civile ñu amal fa yooyu présidentielle nag ci gox yi Assad daal di contrôler ñetti mbër ñoo fexe ca bokk ci Assad mi toog ca bopp nag 2000 ba tey jile nettalum xibaar yi mbokk yi asalaamaaleykum ministre affaires étrangères nak moo jëbal démb ay chèque ci wàllub ndimbal le waa réew mi nekk euh, ca bitim rew, soros bi nag doon na daal soñu leen ngir rek ñu ñibbisi euh, ci biir réew ma Sénégal nag ngir liggéey yokkute rew mi boobu le montant fees tol kon ci 700 millions de francs CFA jëwriñ ji Mankeur Ndiaye àddu ci micro Aram Touré Ibrahima Diané. xaalis chèque yi ñu distribué euh, tey si ngoon mooy li ma wax pour les Sénégalais nous avons des projet Sénégal et puis faire également pour encourager les Sénégalais mais les Sénégalais wax nous leen rek ñu Nous loxo dara ñu am liggéey wala les bitim donc ñi nga xam nous gouvernement a décidé accompagner accompagner partenaires Italie France aussi am na ay propositions Nous le retour mais retour il faut que nous retour parce que coup d'elle te ce projet doxul ñi nekk bitim réew des fa duñu sawar dellu si donc loolu moo tax FAES ak direction de senegal à l'extérieur def seen kéemtulaay kattan en tout cas président sas leen ma gën leen sas pour que ñu continuer liggéey bi nga xam ne sëmba noonu ko ñu def ko nu mu gën a rafetee te chèque yi ñuy joxe yi ñu koy joxe si anam yu leer képp nga xam déposé nga ce projet buñ la financé nga xam ni financé noonu la buñ la financé wul nga xam pourquoi financé wul et puis ñuy aider également di leen dimbale pour ñu def projet yu baax. Mankeur Ndiaye ministre des affaires étrangères local yi ken kenn du ko toxal dina am le 29 juin mu di rek ay kaddu ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo nak, gina kon liste yu ak dal tension électorale nak bi ñu rek daal fan yile mom Abdoulaye Daouda Diallo nak addu ci micro madame Kaba Rahmatoulaye Diaw. élection Inch'Allah, dina tenir le 29 juin euh, weer bi euh, waxoon nako, ko amul lenn en tout cas ñu ngi ñaan yàlla ñu am gàllankoor bi nga xam ne dina ko tere c'est vrai que liste yi bëri na euh, c'est vrai que parti yi ñu si bëree ñu ngi wax ne que maanaam préparé ñu waaye suñu arrêté date ñëpp d'accord si ñu wax ne 29 la administration nekk si wàllam di liggéey si loolu ba pare ko ah, en tout cas gisuma lu koy reporter liste yi c'est vrai bare dañ koy ñaawlu parce que occasionnel dépense yu bëri wax naa leen ak élection yi mën nañu coûté maanaam ay 15 milliards lu bëri la loolu lu ko gën a yokk mooy liste yi ni ñu gën a bëri su nekkoon liste yu yu bëriwuñu par exemple 1800 élection yi passé la woon ñu dem 2500 après mille listes yokk na si euh, loolu su amul woon effectivement dépense bi xam ngeen du du gën a bëri noonu parce que surtout frais impression yi la mais euh, comme que am na en tout cas on fait avec mais euh, le le wër le 29 juin de dënnu élection et une administration préparé nous pour euh, mun def élection yoy si date boobu incha allah rabi. nak ministre de l' ci l'élection locale war am le 29 juin inshallah député Cheikh sek nak bu Ndindi la ñu rek daal di fal ci bop coordination régionale bu PS ca diwaanu Diourbel jubóo la ñu nak kon yooyu rek daldi am ci Bawol ci sen bureau régional tax nak ñu rek wajal sen congrès bi ñu war a amal kon fii ci Ndakaaru 6 ak 7 juin Cheikh sek ci micro Papa Sayer Mbaye bekay Ndiaye. union régionale xam ngeen ni muy doxee ci sunu parti dafa am ay critères critère yi mooy boo xoolee parti socialiste dafa am ñeenti entité dafa am góor ñu mag ñi am góor ñu ndaw ñi am jigéen ñu mag ñi am jigéen ñu ndaw ñi suñu dajee nag département bu ne dañuy waxtaan ba juboo bu ko defee benn département bu ne dana am benn commune bi chef lieu de région bi dina am benn ci loolu ci la ñu waxtaan ba juboo muy consensus juróom benn coordination yi fi nekk yëpp signé ko beneen coordination bi dafa nekk contentieux évacué guñ ko mais réservé nañ ko ay postam ñu fal ma à la tête de cette coordination jël Mor An toftal ma ci jël ñeneen ñeneen toftal ma ci may wax rek ni fal ma taxul ma doon ab chef taxul ma doon ab patron équipe la ñu équipe boo xam dana mobiliser wu pour que parti bi gën a jëm kanam pour que ñu liggéeyal parti bi ba nga xam ne déjà ci local yi dinañu ko wone mais danañu permettre également 2017 parti socialiste dellu si waat au pouvoir congrès ni ñuy demee mooy li ñu bëgg mooy parti bi yépp na mobiliser wu ci région de Diourbel képp ku mën a dem rek na préparer pour dem am na ay délégué délégué yi mooy ñuy liggéey ci commission yi waaye mobilisation d'ensemble bi nga xam nañ ko bëgg mooy parti bi nous ñëpp mobiliser parce que congrès bi congrès a lancé l'élection day locale pour que parti bi en ordre de bataille pour que vraiment ñëpp mobiliser pour ñu gagner l'élection. yi ñu jëm bu ko stimulus pour nous permettre 2017 que parti bi en fa mu bataille. gagner kaddu ko Cheikh sek bu ci ci rek ci euh, poste secrétaire général PS à 93 93 nak suffrage ci procès verbaux yi que 54 coordination ci 114 ñu renouveler porte parole ak dal yor communication bu PS mo am 562 voix manam Dal 06 suffrage valable préalablement exprimé. ci wàllub njàng mi nag étudiant université virtuelle bu euh, Sénégal ñoo ko ñu ko ci seen ay kaddu nag mu def lu ëpp juróomi weer defuñu euh, cours nag tax it daal tam euh, bourse rek ci étudiant ca boobule université virtuelle reportage Ramatoulaye Diaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dafa doon wax ne ngir uti xam-xam jar na nga dem ba ci Chine waaye ñii lay étudiant ñoom ci biir internet bi la ñuy sukkandikoo ngir am seen xam-xam ñoom ñooñu ñu orienté ci université virtuelle du Sénégal ñi ngi jàpp ne ba léegi seen cours yi tàmbaleegul te loolu noonu ay naxi mbaay la. depuis novembre la ñu orienté woon au mois de janvier indi woon nañu CICES di ñu wax voilà lii la ñuy def UVS nii lay mel nii lay mel mais loolu yëpp dafa doonaat gisuñu si absolument rien euh, la fois passée la ñuy def ay li ñu tuddee ñoom cours présentiel cours yoo xamante ñetti matière kese la te étudiants yépp moom la ñuy def te xam ngeen université bu ne dafay am par filière alors étudiants yépp moom la ñuy def lool nag du yoon ñun instant li bëgg lenn la mooy jàng moo ñu wax ñu kañ la ñu commencé jàng. ki ñu dénk université virtuelle du Sénégal nag moom jàpp na ne étudiants yi comprendre ñu bu baax ni mbir mi di fonctionner si gis-gisam balaa cours spécialité yi war a mën a tàmbali faw bépp étudiant rek am ordinateur bi nga xamante ne ci la ñu war a sukkandiku ngir def seen i jàngale. cours classique yooyu man dugul commencé ndax dafa am ay jéego yoo xam ne da koy wax pour que ma commencé cours classique yooyu bala nga kaa commencé étudiant bi da nga ko jox ordinateur étudiant bala nga ko jox ordinateur. da nga xam moom ci ban anam la nekk am na bourse wala amul bourse boo amee bourse nooy doxale boo amul bourse nooy doxale boo amee ordinateur ordinateur ni ma ko waxee aussi ay nàkk yoo xam ne nga koy séddale nga sax rek lok dem sa yoon déedéet ordinateur bi du foyikaay. bu ñu ko defee nag ba sa xam-xam mat sëkk ci loolu. ñu ne waaw léegi nag jot na ki war a def droit jàng droit ki war a def mat jàng mat ki war a def économie jàng économie. étudiants yi ñi ngi laaj tamit bourse pour ñëpp ñoo xamante ne ñi ngi inscrire ci université virtuelle du Sénégal ndaxte jàpp nañu ne suñu ko amul duñu mën a dund nu mu waree comme yeneen ndongo yi ni ñu koy defee bëgg nañu fi ak alxames seeni doléance ñu satisfaire ko jërëjëf madame Kaba Rahmatoulaye Diaw ci diwaanu nag Sédhiou kilifa diine yi ñooy waru nag daal ci langue politique bi ak daal ci biir université yi ñuy nag sàkku ci askan wi ñu jëfee lu ñu wax nag wàllub mbay mi tey ñaax nguur gi mu tax taxawal mbirum rek jiw di ay semence ci nawet bi nekkoon door foofule ca diwaanu Sédhiou Robert Diandi. texo yu metti ñu ñu ko ci biir réew mi jamono yu ñu toll rawatina fële ci université ak ci langue politique bi jaaxal na loolu këri diine yi ci biir région bu Sédhiou ba tax ñuy ñaan ñëpp rek ñu ànd ak dal. université mooy bërëb boo xam ne dañuy former ñoo xam ne ñoom ñooy nekk suba ay gouverneur ñooy nekk suba ay ministre ñooy nekk suba ay président donc c'est l'élite de la nation donc dañu war a aar lieu boobu donc vraiment maa ngi ñaan. Euh, euh, les autorités administratives les étudiants nous ñu mun autour d'une table pour arrondir les angles ñu waxante tamit deux parce que si deux rek ñu nous a gis solutions yu bar et des solutions durables. Quelqu'un ki nga xam candidat nous ñu conseillons lay conseiller pour nga ànd bu am nag euh, élection bu ànd ak jàmm ñëpp ñu ñu àndandoo def jàll def jàmm ki nga xam ne yàlla yàlla si élection si commune ak communauté rurale képp ku nga xam ne liggéey na yàlla fal ko ñoo xam ne kooku mooy fal mu àndandoo ak ñëpp liggéey. njiitu këru diine yooyu ñu ngi ñaax askan wi ñu sóobu bu baax ci projet domaine agricole communautaire yi waaye itam ñu ngi xaar ci nguur gi mu joxe ci nu mu gënee gaaw jiw yi engrais yi ak matériel agricole bi. projet bi bu bu jaaree yoon.

waaye itam ngir jàmm sax fépp ci biir Sénégal. Robert euh, John di demee nag nekk kon ci euh, île à Morphil moo am ay rek kon nag jafe-jafe ci wàllub ma euh, di nag ruqee bi mu daal di ruqee tax na kon daal mer ba te ay kàddu rek di sàkku nag ci nguur gi yenn ci ay nag kon jéego ngir daal dem bi gën fa mën a mën na rekk yemb ànd ak aisance moom Mamadou Dia moo wax lu nu mel ci micro Moussa Diagne Abdou Boye

Euh, dafa am solo ci ci ci ci ci ci zone bi suñu diggante ak Bogué nguur gi def na bac am na ay leet yu ko yu joxe bac bi wante ci wàllu Mauritanie ñoom tam ñu ngi ci taxaw kéemtalaay kattan maa ngi gërëm sama naataang maire Bogué bi teewe na euh, euh, ziara bi te mu ngi taxaw kéemtalaay kattan pour que ñëlee wàllu aussi ñu war a defar ñoom ñoom sax ñu ngi defar débarcadère bi donc euh, euh, ñun tam war nañu góorgóorlu defar débarcadère bi dana participer ci désenclavement bi lu mel nii nag lu am solo la ci yu ñu digmal yu ñu digmal lu am solo la mooy ñu def ko ci jàmm def ko ci salaam fekk ñoo boole suñu xol yi ak suñu xel yi parce que xam ngeen ni euh, lépp. mu ngi ci boole seen doole boole seen am-am boole seen xam-xam lu ngeen euh, euh, euh, jàpp rek daa ngeen ko daaneel daa ngeen ko defar dana dana jaar yoon loolu laa wootee ci ñu nekk fii ci dëkk bi yëpp ci biir commune bi ñu def yëpp ci jàmm def yëpp ci déggoo ñu def yëpp ci àndandoo ñu def yëpp ci taxaw pour dëkk bi naat te benn nit musu ko mënu ko def ñëpp ñoo ko mun a boole boole seen doole mun ko defar donc ñun ñëpp nañ delloo suñu xel ñu xam ne lu ñu def fii dañuy dañu dañu dañu dañu bugg dëkk bi jëm kanam dañu dañu nekk ci ñoo bokk parti ñoo bokk lépp donc war nañu boole suñu dool doole liggéey

wuti crédit que la lu nga am jafew na lool ci képp nga xam porteur de projet nga nek diwaanu bët salim réew mi li ni mel nak fonds de garantie des investissements prioritaires bu Sénégal nam ko yëkkati teg ko fële ginaaw bi nga xamee rek lancer na opérationnalisation produit bi nga xam codification fonds bobu ci bi Casamance. te bobu lancement sax 96 jigéen ñom ñi ñi nga xamni nañu financement ci wala lu toll ci 15 millions ci suñu koppar jóge ci fonds GIP. financement bi dinañu permettre ñu améliorer qualité suñu produit ndax écoulement bi buna yomb. parce que dafay métti li ndax te ñi ñi euh, bu ñu gisee ne suñu produit bi baax na jaay bi day yomb te jaay bi bu amee naataange day ñëw kenn wax na ne jigéen boo ko joxee xaalis mooy famille bi day naat famille bi bu naatee Sénégal day jëm kanam ci loolu damay gërëm ñëpp lii nañu xalaat di ko jox jigéen ñu bëri parce que jigéen yi daan seen doole rek la ñuy def. ñu amul tey sax dañu war a am kon nag suñu ko joxee dañ koy liggéey. yàlla dimbale ñu delloo ko kon noo leen ko joxee ni nit ñi. administration FONGIP moom ci boppam jàpp ne rek tànn bu ñu tànn dina diwaanu bët saalum réew mi ngir tàmbali fa bi bi les produits deful lu dul indi sas ñi nga xam ñoom ñooy porteur projet ci diwaan wi. su ñuy topp ndigalu président de la république mooy que ah moom moo ne Casamance mooy pôle pilote. donc lu ñuy def ci pôle Pilon ñu doog ñu ñëw commencé ko doré ko Casamance. suñu liggéey moy jappalé ñu bëgg liggéey ñu am financement suñu les garantie ñu jox leen garantie ñu am financement bi. ñu ko ñu ko am dañu wara xamni ah ñoom de c'est des privilégiés ñu def tout ba nga xamné dañuy fay. si délai yu ñu jox nga xam ne ñeneen mën nañu amaat wala ñoom sa mën nañ leen joxaat ñu yokk seen liggéey ndax économie bi ah, mën a naat donc loolu moo tax te ñun donc Casamance loolu léegi ma wax sama mbokk Casamance yi ñun léegi dañu am responsabilité ñu am sas. ñuy fàttali kon ni 200 millions ci suñu koppar mooy li nga xam ne rek fonds de garantie namm na ko indi ci ñetti weer yi nga xam ne ci lañ nekk nii mu nekk nag yaakaar bu mag bu dund ci porteur de yi nekk ci Casamance rawatina jigéen ñi fii nga xam ne kat ñàkk moom nekk na fi li nga xam dëggu na. jërëjëf Cheikh Tidiane Cissé fi nekkoon ci ndakaaru chauffeur si rek mooy sàkku ñu defaraat tali nag Kaolack ba dem ak ba diwaanu Fatick ñu ñaawlu li mu accident nag yam kon rek fan yi ci biir réewum Sénégal te rek ñax nag ci nguur gi daal ak seen ay moroom ñu soppi ay comportement ci kaw tali bi reportage soxna Ndeye Aram Touré. gannaaw jéego yi ñu amal ngir yokk kaaraange gi ci tali bi limu nit yi faatu ngi yokk ba léegi chauffeur yi jaar ci Fatick ak Kaolack. di ñawlu melokanu tali bobu nga xamni yaqku yaqku yi nawetu daw bi la ba legi ci seen lu ñu mel moy jur accident yi ñu nemmeeku ci tali bobu joos moon tali bi baxul ñaari oto ñu fa dajé ta daw la won sa nawet ba ba legi tali bi dag Sénégal gep xam auto yi day kawlax yi yoon wi dafa dag te état bi ba legi defu fa bu reeti suuf te buñ ko bàyyee nonu dina am accident yoon bi mo baxul da ngay daw yor car, camion pan fu demee ni virage du tek triangle rouge tek ban benn tabla soo ne yam si mom la ngay def moy duggu ci taat do doo mën a ndax li ngay daw moy tax. diggante Dakar ak Thiès limu nit yi fa fatu bari na yitt chauffeur si ñaawlu nañu defaree tali bobu ndax ñom japp nañ daan doodaan bari do daan yu bari ñi defal fi ni Dakar Thiès bu Dakar ba Touba presque ay do daan chauffeur bi nga nek chauffeur sept place wala nga nek chauffeur ki nga rang pompier xam nga chauffeur ñom fop ci sen auto lañuy la sa yaram bi yop day tass nga pare bëgg a jégg ay cent doodaan fii ak Touba si yaa may dégg loolu li gën a indi accident yi loolu si la freiné freiné boobu ngay freiné ngay dem ba sa yaram yëpp ay tas. waaw alub kaañ dañ a fay freiné sax ñu agressé la. bu dee guddi doo ko gis nañ ko nañ ko peinture mu leer. wala ñu def ko comme ñu nekk biir Dakar nga xam ne da ngay ñëw yéeg da ñoom chauffeur yi ñaawlu nañu it ñàkk muñ gi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci yenn ci seen i moro loolee ci seen kàddu bokk na ci li jur accident yi ci tali bi da ngay gis ku ne si kaw tali bi ñu def la la naqari ngay fayantoo oto lépp a ngi fi loolu ñu ngi koy dund ci kaw tali bi li may wax maa ngi koy gis chauffeur yi dafa bëri ñoo xam te dañu xamadi loolu moom du ma ko nëbb dama koy wax ci kaw ñëpp dëgg tey nu chauffeur mënti mel war nga gëm sa bop bo nit ki bu la manqué respect nga xam li nga xam moy sa droit mais chauffeur am na ñu bëri ñu ngi dawal xamuñ seen droit. ñu ñak a rafetlu contrôle yu bari yi ñi gis ci tali bi chauffeur yi ne ñom sa suné ñu jël xaaliss ci ñom té du muju fenn. parfois nga gis auto bo xamné da fay day day mu leer auto bi mënul daw nga bayiko ñom seen 1000 francs lañu di lu ñu dimbali woon ci 1000 francs ñuy laaj sonal nañ ci 1000 francs yi. ngir accident yi wàññeeku ci talibi bi chauffeur si di ñaax seen morom yi ñu ànd ak dal ci set yi nga xam ni saltige yi fessel nañ ko ci ëllëgu réew mi ñom chauffeur yi né ñu ngi bayyi lepp ci loxol yàlla. man yoy sa man kiwuma ko man man man fa yàlla. yàlla daal la gam li wara am dal dina am. dit dana bañ a wàccub lalam wàccub liggéey yi. waaw fu ko yàlla tuddu rek fofa la. ah loolu de mo ngi ci loxo yàlla. mu ci loxo yàlla kon ay kàddu chauffeur ci euh, bële reportage soxna Ndeeram Touré xibaar nag ci gàttal euh, comité waajtaay bu rek 126e édition bu pèlerinage marial bu Popenguine nag dina mal conférence de presse tey si ngoon ginnaaw kon 16h30 ñu war a nag ci thème ren jile euh, programme bi ak matuwaay yi ñu jël kon ci wàllub rek mbirum kër docteur wàllub karange marche pèlerine ak convention médiatique. xibaar yi ginnaaw nag Sénégal dem rek bitim réew ca réewum Syrie ñu fay amal nag élection ci boobule réew nga xam ne daal. Sénégal dafa nekk ci guerre civile tax nag xaaj bi ci askan wi ñoo daw seen i kër bi nag scénario moo am ci mardi bi élection njiitu réew bu nguuru Assane nag bëgg moo am. ci bërëb yi muy contrôlé nag rawtina ci Damas ñi fa ñëw ngir woote la ñu fuyee takk der waa nguur ga ñoo ragal ay attaque rebelle ñett mbër kon ñoo nekk rek ci ñuy xëcc boobu la élection bokk ci Bachar al Assad bi bokk nag kon toog rek ci bopp nguur ga ca tuma 2000 ba tey jilee Tereum Ukraine rebelle pro Russie ou gox Lugansk nak ñoo dal tay jilé euh, ci l'armée bi ci ay xibaay yu bàyyikoo ci euh, njit la ci kanam seen parlement aviation ci ndimbalu nak blindé yi ñoo bombardé ci suba ay euh, checkpoint yu bari ay séparatistes yor nañu nak amna ñu faato ak ay blessé ci ñaari camp yi yep nak mu réplique bu Kiev ginnaaw assaut bu ay insurgé amal ci ben camp de garde frontière ci wetu Luhansk ñu dem ca réewum Palestine foofu nag benn kenn ñenn nag ànduñ ak taxawalum benn gouvernement d'union nationale waaye yile Gazawi ñoo fësal seen kontante ñu ko doon nag xaar ginnaaw juróom-ñaari at am yaakaar bi la gouvernement bu yees kon Dakar rek blocus israélien te yaxanal seen banqaasub koom rawatina wàllub emploi waaye nag mu di lu yombul donte sax cabinet de transition bu 17 ministre amul benn membre affilié ci waa Hamas Israël nag di dànkaafu jël ay matuwaay ci kaw autorité palestinienne yi muy fësal ne nag du am benn relation ak boobu boobule gouvernement te dina ko rendre responsable ci ay euh, acte terroriste ñu ñëwaat ci biir réewum Sénégal ñaareelu xaaju xibaar yi ak lu gën a fës ci xët bu njëkk yéenekaay yi nag doore ko ak yéenekaay bi ñuy wax le populaire moom nag maa du ci musiba ma bokk ma nag bi am ci Sacré-Cœur 3 benn jigéenu guddi nag la ñu jamatey paaka ba mu mujjee nag fàttu kemal boobu la ñaaw teef Samba Ngom lay wuyoo bi ko nag bëggoon a tëddee waaye nag mu mer ginnaaw ba ko soxna si ne mu xaar ba mu pare ak keneen ki nag ne woon si boobulee appartement ci Sacré-Cœur 3 yéen le soleil mom wax rek ci élection du 29 juin njiitu touré mi nak euh, di euh, wolop dal té rek ñaax nak ci parti politique yi ñu def ko ay élection citoyenne mu di nak élection yo xamni dal kenn du ko toxal ministre de l'intérieur di wax ne nak ñu ngi ci disposition ngir def ko le 29 juin inshallah yéen Sud Quotidien Mom direct rek laaj ba xam ndax Macky Sall bëggalu nelawloo ay adversaire ci local yi ngir nak gën leen raw ci résultat yi mu di app laaj ginaaw ba Macky Sall taxawale ben task force bu treize chefs de guerre ngir rek ñu ëmb directoire bu campagne nationale rax doolu nag njiitu réew mi di sàkku ci parti politique yi ñu def yi élection ay élection citoyenne yéeni kaay le quotidien le quotidien ne Macky Sall nag moo nar a wax ci local yi comme njiital parti ca diwaanu Thiès fi mu nar a nag jiite conseil des ministres délocalisés ñu war a tam waxtaane ay ci chantier Thiès yi yeggul yi yéeni bi di ñu xamal ne maire ba idi at juin am jatara du ñu teerewu Macky Sall ndax day fekk nag la 7 juin ñu teew ca réewum France yéeni euh, réew mi nag duppee ci boobu la rek conseil des ministres plan anti idi bu Macky Sall ñu nag njiitu réew mi euh, mu ngi nos tey nocc ci ay pexe ngir rek neutraliser idi lépp nag di leer kon ci conseil des ministres bi war a am alxames waaye nag ñu ngi xaarandi Macky Sall nekk rek kon na ëllëg ca diwaanu Thiès. yéen i kaay enquête ginnaaw nag réew mi moom àddu rek ci jéego ñaar ñi fi woon cay jamono njiitu réewum Sénégal mu ne Wàdd moo jël roplaan wutali réewum France ci boobu nag waxtu kon Abdou Diouf mu ngi teew Ndakaaru yéen bi ne Wàdd ak Diouf doon nañu ñaari style yu niroowul la

Yenikay la tribune mom nak ne Wade dara Jotuko, ko te sax woyaasam bu fukki fan France don na privé mom ak soxnam batay kon ci la tribune mbirum xoy yu Nak yi nag Serigne Khadim Diop ko ki Serigne Khadim Diop nak ne saltige ay politicien lañu te nak liñu wax euh, teguñ ko fenn mu ne politique dong mo ci lalu mom Serigne Khadim Diop yéen kaay libération ginaaw nag la tribune moom ne njiital port Cheikh Kanté moo am ndam ci xeexu yoon bi ko nag doon boole ak waa Sempos ak euh, jànku mbeng mbeng nag ne ñu moo demoon ci yoon ngir rek ŋàññu jéego port bi ay wana société mu teew ca mool wétt te euh, Necotrans nag doon ko exploité ginnaaw benn agrément yéen kaay direct info nag ne mbirum Necotrans s'impose ak moom Diankou Mbengue la ñu débouté yéen i kaay bi ne banqaas yoon moo dëggal légalité boobu les procédure bu port bu Ndakaaru mu di nag ab défaite ci njiital MTL ak kuréelu député ci njiitalu Mamadou Lamine Diallo. arène bu Sénégal ak yéen kaay sunu lamb moom nag xëy fësal ñett erreur kon yi rek tax moom Malick Niang am défaite ci kanamu kii di Ama Baldé ne ñu benn nag dafa wàññi woon poids ñaar dafa bëggoon sax saxe boobule kon rek combat mu gën a gaaw ñett nag dafa amoon trop excès de confiance moom nag malik Niang tax kon mu am rek défaite ci kanamu Ama Baldé. mu nekkoon li fi ruuse woon mbokk yi tey xibaar ci kalamay wolof 19h 20h yéen nag jotaayu xibaar lay doon jaa ngi jëf ci seen teewlu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.